ngir ngeen jot suñuy vidéo nag foo leen toll si réew mi wala si réew da ngeen di abonné fii si Tawfekh a jot mboolem vidéo boo ko a xam li nga xam ne mooy xew si bokk na ci àq fexe ba ku ci yàlla may njaboot gu limu nga di leen yemale di war a bañ a jël kenn teg ko ci kaw keneen ndax loolu yëpp am na loo xam ne mën na koo jur ci. bopp gone gi bari na ci yox yoo xam ne dañ koy néewal te lu ci mat a bàyyi xel la mooy gone gi fa mu gënee nekk gone nga koy tàmmal col gu yiw tàmmal ko bañ a wuññi ay awraam loola danga koy teel a euh, tàmmal gone gi mu gimmiwaale ko kon ñi ngi eggali lees ci waxtaan wi ginnaaw nodd gi aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li saa'iri almuslimin allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu an la ilaha ashhadu an laa ilaaha illallaah ashhadu anna muhammadan rasuulullaah ashhadu anna muhammadan rasuulullaah hayya ala salaam kon mbokk yi ñu wëyal ci li ñu doon wax ci ay ci ci ab yar moo tax ñu waxoon ci njàlbeen ne processus bu gudd la boo xam ne lu jiitu lu ne am lu ca topp waaye lu jiitu lu nekk lu war a jiitu dana mën a woyofal la ca topp kon gone gi noonu mu ñëwee ci yow nekk bind bu set bu sell lépp loo ciy jëfandikoo war nga ko xool war nga koo bàyyi xel noonu ñu ko waxee ci ak col ndax col gi la lislaam digal munoo koo bàyyi di colal leneen gone gi mu tàmm ay cëram di génn ba ba mu mag màgg nekk mag walla mu majeur nga bëgg ko koo bàyyiloo du yomb day fekk ne lële tàmm na ko ba noppi am ci yoo xam ne war nañ ko bàyyi xel ci yar ci kër yi bu dee gone gu góor la yoon saa salaam sax waxoon na ni digal leen seeni doom julli ci juróom-ñaari at wax ne bu ko weesoo ci fukk nag mën ngeen a taral ni ngeen leen koy digale waaye teqale teqale leen doom yu góor yi ak yu jigéen ñi ci tëdduwaay ba waaye kon daf cee bokk sax ci doom ju góor nga fexe ba mu bañ a baril ak jaxasoo ak barab yee jigéen ñi di nekk ndax yooyu yëpp mën naa bay jeexital ci moom bu ko jural leneen ëllëg loo xam ne mën naa yàq lu bari ci dundam kon ni ñu ko waxee yar lu jafe la rawatina nag ci jamono ji ñu ne jamono ji nga xam ne léeg-léeg nga jubloo yar sa doom mën nga ko wutal waajur wu sell bu rëdd ku tur wu rafet jàngal ko diine la mënta ñàkk waaye yar boobu boo ci jawul sa bët mën na am yeneen yoo xam ne dana ko xëccoog yow dana ko yow léeg mu doon ci yi ñuy jëfandikoo léegi te mucc ci jafe lool moo xam li ñuy tuddee média la ak ya ca aju moo xam li ñuy tuddee internet ak ya ca aju ci ay réseaux sociaux yoo xam ne lépp dafay jeexital ci gone gi nga yar bàyyi xelit beneen tomb muy bu ñu waxee yar éducation tarbiya nga xam ne léeg-léeg ñu dugal ci ni nga war a instruire gone gi jàngal ko muy enseignement wala taalim foofu itam léeg boo jawul sa bët fa gone gi di defee mën na am mu am lu mu soppi te na nga bëggoon mu mel ni kon yooyu yëpp léeg-léeg barab barabu jàng jàng yi jàngukaay yi école yi léeg-léeg bi léeg-léeg réseaux sociaux yi ak yeneen yoo xam ne lu ci nekk boo jawul sa bët mën naa xëccoog yow gone googu ak yar ba nga ca bëgg a def kon lu am solo la moo tax mbir la moo xam ne da koy topp rek te di ñaan suñu borom mu defal la ca la nga bëgg bu yooyu weesoo waxoon nañ bi ñuy wax jàngale alquran jàngale diine ci la bokk nga jàngal ko diine jàngal diine boobu la mu war a xam ci ay farataam ak la méngoog fa mu toll jàngal ko am aqida pas-pas gëm yàlla ak la ca aju la méngoog fa xelam toll def lu baax ak la ca aju di ko xiirtal ci ay jikko yu rafet loolu yépp dana dimbale gone gi mu mel ne beneen mbir itam léeg-léeg dinañuy faral di wax wala am na ñu koy jëfandikoo mooy gone du toog ci biiri mag gone du toog ci biiri mag xëy na du waxtaani mag yépp la gone war war a déglu waaye gone bu toogul ci biiri mag ana fan lay yaroo ana jikko yooyu kan moo ko war a def ci moom ndax mbedd mi la dem leen fo dañuy waxtaan gone damay wax ne mbedd du palaasam dénkaane suñu boroom la bu mu defar ba mel na na gën a mucc ayib mu jox la ko bu la koy bis bu la koy laaj itam war ngaa fexe mu mel na gën a mucc ayib kon gone mbedd mi du barabam mel na loolu itam jafe-jafe la bu ñu war a bàyyi xel léegi léeg nga gis gone guy foo ci mbedd mi ab doxam sax du dëgër wala mu génn àndul ak wayjur ak yu baree bari yu ñuy jàmbat ci jamono bu ñuy wax ca sàccum gone yi bu ñuy wax enlèvement yi dëgg la mën nañ poser problème mu sécurité ak ñi ko yor waaye balaa booba njëkkeel ci li la war muy gone gii la yàlla dénk te di la ko laaj na nga fexe ba sàmm ko na nga fexe ba aar ko kon jikko yooyu boo ko defee ci gone gi nàmpatal ko ci jikko yu rafet ak teggin fexe ba mu sàmmoonte aki i teggin ak la war ci teggin teggin ak xaaj yi ci nekk ni mu limoo moo xam adabu zahir wala adabul batin bi war sa digg ak mbindeef yi bi war sa digg ak sa boroom bu dee mbindeef yi bi war sa digg ak mag sa digg ki nga mag ak sa diggante ak ki nga maaseel kon teggin boobu bu yar bi matee fa nga ko war a jaarale mu jaar fa nga nampatal ko ci jikko yu sell yooyu mel na ni kon dana am teggin te xam ngeen ne teggin day nit ki mënta jëriñu fii ak amu ko ñoo taxitam ñu bàyyi ko xel ba gën cee xiirtal gone yi waaye itam ñu bàyyi xel ne bi ñuy wax wayjur wu sell kama yaqulu al arab faqidu shay'i la yu'tihi kon wayjur wi jikko yu rafet yooyu col gu jot googu melokaan wu rafet bañ a wax lu dul dëgg yooyu dafay njëkkee ci wayjur wi am na ñoo xam ne léeg-léeg xëy na duñu ko bàyyi xel daañu def dara ci kanamu gone mu mel ni dañ leen xirtal ci leneen ci wax lu dul dëgg walla yu mel noonu te gone ni mu sellee ak ni mu mel moo tax li ñuy wax maanaam yar dëgg la dana am ci ci wax waaye dana am ci jëf maanaam l'éducation par exemple nga xam ne yow sa melokaan ngay njëkk a yare bala ngay yar ci sa wax te gone yi dañu dañu am xel léeg nga tere gone dara boo ko wëlbati koo def ko danaan la du yaa waxoon ne nangam baaxul kon wayjur mooy école bi njëkk boo xam ne gone daf ciy jàngee rawatina wayjur wu jigéen teggin boobu ñuy wax nga jaarale ko fi nga ko war a jaarale mooy tax mu mën koo am te wax nañ ne teggin nit ki mënte jëriñu fii ak amu ko is kullu man bi gayrihi raama tibaa fa innahu yuxramu fawzan wa intifaa képp koo xam ne daal jublu nga jaamu yàlla wala topp sunna si yonent bi sallallahu ci lu dul teggin na nga xam ne ak texe ak ak ak jëriñu moom doo ko am te làmboo ak teggin kon ñu toqi gone yi ci teggin ndax lu am solo la bokk na ci solo ci solo teggin mooy li annahu munawwirul janaani kama yuqarribu ilal jinaani teggin googu dafay setal xol daf koy laabal ni muy doxee diggante wala ni muy taxe ni muy jegeelee jaam bi mu tàbbi aljanna wa yujibul madxaladal jiiraani dana tax ba sag maas wala tey dëkkandoo daañ la wekk danaam am fu ñu la teg kama yu baaxidu an ñu niiraani loolu nag teggin moo ko teggin moo ko mën a maye yooyu ñoo xoon diggante teggin diggante nit ki ak moroomu nitam te loolu yëpp ci yar da mën a jaare wajal saxiranaa yuwaqirul kabir wajal kabirana yuiinu lissaxir yonent bi saa sallam moo waxoon ne samaw xeet du jóg ci aw yiw fii mag ñi ñu ngi yërëm gone yi gone yi di wek di wek mag ñi yërmande gi mag ñi di yërëm gone yi ñu yar leen yar bu rafet ñu ànd ak ñeewant ci ñoom te sore lépp luy violence ci la bokk boo wegee ki la mag yërëm ki nga mag ki mel ne kim nga maaseel nga def ko ni sa bopp lu am solo la mu mel ne bu ko ñëpp sàmmoonte woon ak moom dunduk àddina gi dana gën a yéwén mooy fi muy waxaatee ne waqir saxirahumu wala waqir kabirahumu warxam saxirahumu wa raay fi kulli xalqin xaqa man xalaqa wax ju am solo ju mat a ju mat a settantal ju mat a bàyyi xel wegal kila mag yërëmal ki nga mag yërmande jooju lu bari xëy na mënoon nañ ko wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak nu mu ko doon jëfandikoo ak gone yi waaye li mu ci teg wa raay fii kulli xalqin xaqa man mbindeef bu mu mën a doon loolu moo gën a yaatu moo gën a général nee na bindeef bu mu mën a doon sàmmoonte ca ak àqi suñ borom mi ko bind bindeef bu mu mën a doon nanga ci sàmmonteeg àq yàlla bi ko bind donte bindeef bu doyee la boo ci sàmmonteeg àq yàlla danga xam ne yàlla moo gën a màgg lépp mbokk jullit yi kon yar daal mbir la moo xam ne responsabilité la ci way jur ëllëg yàlla dana ko ko laaj way jur wi warta gaaw a teggi loxoom ci yar moo tax mag ñi daan nañ leen yar yarin woo xam ne da nga dem ba nekk mag nekk kilifa nekk sa njaboot waaye ka la doon yar ba tey noonu ngay wéyee di ko bàyyi xel te ñu bàyyi xel gone yi ak fi ñuy dem jàngukaay yi bu dee mënta ñàkk ndax bépp xam-xam am na njëriñ ginnaaw xam-xam bi nga xam ne mën mënta ñàkk nag mooy xamal ko alquran jàngal ko diine mu xam tey jëmm xam-xam bu am njëriñ bu ne baax na wa kullu ilmin bi manaafi'a ayafi waaye ñu bàyyi xel nañuy topp gone yi ci école yi di xam yan condition lañ fa nekke ndax léeg-léeg am na lu mën a teeyal xel ci yar ba ngay yar dama koy faral di wax bu fekkee dañ ne dañuy sensibiliser xale yi ci yenn jàngoro yi bëgg cee jaare nag ba nga xam ne buñ leen dee sensibilise dañ leen di wax ne na ngeen wattandiku jëflante ci wàllu sëy te te te te feguwoo xam ngeen ne loolu du yarul lislaam yarul lislaam de mooy na ngeen ko wattandiku fii ak dugg leen ci néegu sëy yi may wax nag yu am la am na ci ci am na ci école yi am na ci barab yu bari am na ci centre sax yoo xam ne dañuy wax ne yee dañuy yee gone yi ci yooya waaye mën na am leneen mën na caa dugg kon ñu bàyyi ko xel yàlla nañu yàlla gën a dimbaleel boppam ba ñu yar suñuy njaboot yar goo xam ne bu ëllëgee buñ teewee suñu kanamu suñu borom masuuliya boobu bu ñu koy laaj dinañ mën a euh, wàccoo ak loolu yàlla nañu yàlla dimbale ba suñu njaboot bokk ci qurrata ayunin yàlla nañu ko yàlla defal wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam